asalaamaaleykum mbokki déglukat yi mbokki kat yi soppi Gambian Talents yi nuñ koy defé rek sa yuñ togué gis li nga xamantene ne mu ngi yëngal euh, Gambia li nga xamantene opinion yi Gambian ci lu important la ci dañuy genn def def doxantu ñu ndaw waxtana Gambian people yi pour ñu wax la ñom nuñ ko gisé moo taxit tey ñu doxantu ñu fi bir farato pour ak si nuñ gisé li nga xamantene moy xew ci dëkk bi duma def dara luddul di leen ñaax ngeen top ñu ñu dugg ci bir waxtaan ak waa ak ñom nuñu gisé lu mu fee xew. salaamaaleykum waaleykum salaam. Uh, naka nga tudd. Uh, man Omar. Uh, dañ la bëggoon a xam rek yow naka nga gis sa gis-gis si TRRC bi ak Sana Sabally ñaari fan yum testify naka nga gisee moom testimony boobu ma wax si si so so ah un wala baake because Sana Sabally même fo banko kan moolu ye a jele ko kule meyalon ka kummaata baakele ya understand ay moolu be kontaan ala kuwe moolu bala fa ñiŋ mala ko ala kumoo ñiŋ ka understand so mata bakale so say momo be banko kan inyanda balafa soto la banko dingole nga balafa soto nyoe nga banko doku anyanda doku la nyame ndeto Omar Sanelti farato ah yow noonu nga loolu nga ko gisee waaye am na ñi nga xamante ne ñu ngi wax ne Sana Sabally lu mu wax ni nekkul digga am na ñi nga xamante ne ñu ngi wax dëgg la yow yow yow si sa gis-gisi bopp yow loo mën a wax si yooyu diggante ñaar yooyu dëgg la wala du dëgg. ah kule meyalongo asototale because mool bee ñaa baalale ya understand kule meyalongo asototale because mool bee ñaa baala Sana Sabally même fo is something truth kule meyalongo akitala nung so anata ka repeat pour ngalong ko membe keri ya understand so wala na lafta ka kuonya as na afan testify pour mol ala membe tamarin because na man na <clears throat> membe keri mol talon so ala na hukuma da banko kan bake mol kontanda ko la bake banko dingol kamal o ko kamal thank you very much jef okay baraka bak bare turbe awa awa awa dañ doon doxantu de waxtaan di laajte nit ñi seen gis-gis si TRRC bi ak Sana Sabali lum def li yow no gisee Sana Sabali lum def li ah Sana sabali, Sana Sabali ndax na kontaan parce que ñëw na setal lum def yëpp wax na ko bal na nit ñi àq lo dal la ko gisee non nga ko gisee mais fi am ñu fi nek di wax ne ni ah, Sana Sabali lum wax li du dëgg amna ñi nga xamantene ñu ngi wax deug la yow lo fokk deug la wala deug xam nga nit mom lu wax rek lo nga mëna wax nga mom lu mu def loolu la wax ñene ñi wax ne du deug mëna am tamit ñom den den am benen risin buñ waxé ne du deug way xam nga moom lu mu def rek loolu la wax man tamit lu wax man gom ko xam nga mom tok na mom mom ñu na tok niti, kanam nité wax lu mu def yëpp loo ko wax lo ko laajte mom dina ko waxal bam set wéj man lo rek mo tax na man gëm na ko kontaan na si turu Maïtoud masisi, masisi, Mar Cissé Ama Cissé fan yi iya, yëpp ñu ngi gis PRRC bi eh, ku ñu bett mu ñëw testify fa muy Sana Sabali yow naka nga gisee Sana Sabali moom testimony eh, da testimony bi ya, alhamdulillah di sant yàlla di ko si da yombul bu doon keneen du ñëw waaye ñëw na nëbbul dara ndax lan doom yàlla ya ak yonent yam ndax yàlla rek ak yonent ñoo dara bani adama du dara bani adama ngelaw rek suuf la sama saabali nu mu def ni waaye adduna bi yëpp kontaan ñëpp bég ndax la ñëpp ko doon seetaan foo dem si adduna ñu ngi seetaan ndax kan si Sana Saabali ndax nu mu def eh, góor la man daal bég naa si kontaan naa si wala dëgg nekk yàlla góor la nu mu def daal waaw alhamdulilah kenn woowu ko moom moo woo boppam ñëw nattali waaw alhamdulilah bu doon keneen mu toog fa mu ne du ñëw te lu mu wax Gambie yi tamit dëgg la nekku si jàmm ndax boo dawee sa réew nga dem toogi réewi jàmbur nekkoo si jàmbur yaa ngi bàyyi sa kër dafa war a ñëw toog Gambien Gambien la ñëpp xam nañu Gambien la ñëpp xam nañu moom xam na Gambien fii la juddoo yara fu màgga fi ba nekk sol yàlla dogal lu mu am boo def lu mu def si dëkk bi mu ñëw nattali ko leeral ko nii si dara dara la si noppu waaw te mu lu mu wax dëgg la munoo noppu yàlla kon bul noppu tubaab yi daal wagal lu nekk si yow ak li nga def moom xam na nguur gi jaar na fi def na fi lu ne ñëpp xam nañu ko waaw xam nañu ñu fu mu jaar xam nañu yoonam bi waaw kon bu dool keneen mën na toog Sénégal wala mu toog beneen bitim réew feneen mu toog fa mu ne man du ma dellu Gàmbi ndax li ma def Gàmbi bu ma fa delloo mun nañu ma tej wala ñu rëy ma mais yàlla nag moom mu jiital yàlla ak yonent bi ñëw nattalil Gambien mission nga lu mu defoon Gambie ak lu lépp la nattali bàyyi si dara kon ma maa ngi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wér maa ngi ñaan gambie bi tamit ya, ñu ñu muñ ñu fàtte waaw ndax laat ñu mën dem bu ñu fàttee rek lu lu si gannaaw dañu mën a dem waaye bu ñu fàttewu téye ya, suñu xol di ak jàpp ko suñu xel du baax si il faut ñu bàyyi teg ko teg ko si yoon dimbale président ndax yàllaa ko jiital du bu yàlla jiital nit ñi topp la waaye foos yàlla kenn mënu si dara kuyalla jita li fonga to kusi bo si to pulta mi daga so ne li fonga to kusi dimbale ko ndak la ñun ñepp ak mom gambia ñepp mom gambia ken momul gambia ñepp mom gambia ñun ñepp ak mom gambia kon nañ jappale persia bi di top ko be be yalla wacce ko muñu ñu ko wacce yalla ko mëna wacce yalla ko égal ci ci to ñepp bëgg dem ek ko waye yalla mo fay jaar kuma yalla jaar do ko mëna jaar ndak nañ japp ci yalla rek muñ moy man yew bay sana bu firi nañu ko dog gambia nañu ko dello si si gambia mu génn fu ne mu ne gan la du ne ko fa si jàmm ndax boo dawee sa kër nga dem rew réewu do ne ko si jàmm maa ngi di ñaan di leen ñaanal yéen tamit tv li ngeen di def neex na baax na ñepp ci bet ñepp ci content sen mission sen mission bi ñepp ci bet daal man daal bu doon suma sax daal ñen continuer ko di dimbalé si nit ñen bañ ko japp leneen daal nañ ko kaf di ree waaw ñu li ñu lu si metti nañ ko nañ ko fàtte ñu dem ci kanam looloo mën a yóbbu ya Gambia pour ñu dem nañu fàtte ci kanam lu si metti ñu bàyyi ko fàtte fàtte ko dafa mel ni dara mosul am Gambia ñu liggéey Gambia dem ci xool ak lépp yàlla la bu ñu jéemee lekk yàlla mu tax ñu bàyyi yenn yi wakki sew sewaan loolu baaxul si rek kon il faut ñu jéem rek ñu xool yéen tamit maa ngi leen di ñaanal ndax li ngeen di def ni yaa yombul wër ci dekk bi am nañu xamantene xamante bo len la jël ñu wax la lu ñaaw wala ñu def la lu ñaaw dag yéen tamit sant leen rek la ñuy def dag so gisee ñuy sétan dara ci télé bi yalla ginaaw yalla ak yonent bi yéen la ndax yéenay dem antu ci xol du baaru baar yi waa di la ñaanal di ñaanal muhammad daal yalla ci kanam daal yalla baax ci liggéey bi la bokk mais yow ma yo do për. waaw pour la kay original pul nga mota nga def nek ko bandum sana sabari ko pul la yo ko ka pul lo dal mbiyen baden din dal affaire pulata ay ko non affaire pular he affaire jola jaago fof ko goddum fof jiidi nene e baba mais si en dangi tan baden dum goddum ma en gondum goddum alla ko goto si en badi goto gonden berde wottare ma gambia ya kono si badi berde didi berde didi nawatani haydara kala si ay mota reldi ko berde wottare ndi wadi wadi kongol wotondi be ndewi kongol ko be badi ko jep ci na rew ma kol ngol ko ah, ma jam kede de boko anda jogi e eh, base ju base ju e eh, bani adam na timma ah, toujours koko juma ta non non il faut mbakli tan gede oh, men no balliten ko emen ene ta mbay wallu ko emen men persida mo amen de ene ballita ko emen men persida mo walla men mais beldena persida mo wadani wadani o yaha do wala ala ko ene ballata ko emen, men non ballirten ko emen, men population gambia e mbay wallu ko emen e ene be kana ta mabe ngala e lamu ene ballata ko emen lam eh. no mo kay mais sana sa bo libido weddi e gere makko wona hasi wona no pullo hasi ko tawno ko goddo wala hetto goddo wona ni pullo sa ko wadi ko beltori parce que ko ardi allah tan alaani o wona hay dara e eh, ko hombo lamdi o ko kanko halani hoore makko ko kanko wadi haali e ko si awnani gorko tawno ko min monano onami jodo senegal onami jodo do goddo misalo arte way ko gorko si tawno ko jola kadi wala sere walla jaago walla soso kadi si a wadi dum tan bido weddi e gere parce que haali am koɓe ko haali ko rek saa yuñ koy defee rek ah nu ma leen ko waxee dugg nañ biir faaraatu dégg ngeen gaay lañ wax ñoom it si nuñ gisee tiyaaraat si bi ak ñu gisee euh, opinion ni Sana Sabally bi lu mu wax li ñoom nuñ ko gisee léegi dinañ leen bàyyi yéen ñi ngi seetaan ñi ngeen wax ñu yéen noo leen gisee Sana Sabally jooj mentam bi wedda lu wax ni lu am la wala lu mu wax li amut ah Gambian Talents ngeen doon seetaan ngeen toppoon ñu ma ànd ak yéen di Hady Sow dina nay jaajëfal si topp bi ngeen ay topp Gambian Talents dina nay ñaax ngeen dimbale ñu ah, like suñ Facebook page bi subscribe si suñ YouTube page bi ah loo leen def rek lu ne ñun xeebuñu ko dara dara dara dara ndax yéen boo leen ko xeebee ñun xeebuñu ko ndax mu ngi ñuy yokk ñeen nay jaajëfal si seen traitaan bu rafet bi ngeen ay seetaan ak topp bu rafet bi ngeen ñuy topp di jaajëfal suma caméraman ah di Moussa jaa ngeen jëf